Eh Diallo Diallo Diallo eh Diallo Diallo Mamadou Sy Bromol mi ngi noonu nous sommes à Sédhiou fii ñoo ko moom fii président basiru Diomaye Diakhar Faye mi ngi noonu Sédhiou nee na waaw président Ousmane Sonko ak président basiru Diomaye Diakhar Faye Sédhiou mi ngi nii c'est normal live bi di dagg il fait très chaud appareil yi day jékki-jékki fay waaye askan bi génn nañ askan bi génn nañ très nombreux fekk si président Ousmane Sonko président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi mi ngi noonu Mimi Touré la Mimi Touré Sonko moo ngi noonu ñoo ngi Sédhiou ñoo ngi Sédhiou on vient d'arriver waaye température bi tàng na lool waaye xoolal détermination xale yi ñu ngi koy wéyal Sonko nomm naa la président Ousmane Sonko président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi noonu Sédhiou en ébullition Sédhiou ngi nii Sédhiou ngi nii il fait très chaud moo tax live yi di coupé téléphone yi di fay waaye jeunesse baa ngi fii waa Sédhiou ñu ngi fii ànd ak détermination bëgg a déglu le président Ousmane Sonko le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak madame la première ministre Mimi Aminata Touré bana bana, niko bana eh. Niko bana bana bana. ne ko doy na eh ne ko doy na eh eh ne ko doy na doy na doy na eh eh doy na doy na doy na doy na Ousseynou Ousseynou Ousseynou Ousseynou Oh pardon pardon excusez-moi Ousseynou Ousseynou Ousseynou Ousseynou Aynu! RTS na ñëw fii wala moom mu tourné mu dem ne RTS RTS.